sëñ Fallou dafa boole woon xam-xam ak ak yitte ju rëy quatre cent nangam mu fay ci bor fayal nit ci nit ñi ci bor lu mat six cent et quelques mu fay ko ciy bor maye ciy wata lu mat quatre cent nangam loobu lim bu kenn xamul lim tollu mag huit cent quatre-vingt-seize huit tabax jumaa ba noppi dëkk néeg boo xam ne boo ci tegee kër goo xam ne boo ci tegee biir almel mu lakk bàyyi fi dara lu ñuy doon lépp mu jox ko sëñ Tuubaa am nag njabootam ñoo xam ne 16000 lañ doon am ñooñ dañ na xool leen jumaa ji mooy seen wàll. xool leen jumaa ji mooy seen wàll. sëñ Amadou sëñ Amadou Badi bi nee ab gameel ak garam bu bu caawal laa doon sëñ Fallu ab la ab gameel bool ab bool rek bu yor laa doon sëñ Fallu te tabax jumaa ji toll noonu niiri armeel yi ba noppi dëkk ci këru këru ñax dénk ngay ñax di fay bor tey faji aaju xam nga ko nax lool te nangu ko nag ngir ba a tas yaakaari kenn sëñ fallu moo waral mu nekk koo xam ne ñëpp la amoon relation bu rafet umma islam bi yëpp moo tax loolu may na ko tiijaanub sëñ Fallou njaagub sëñ Fallou naarub sëñ Fallou mm-hmm. nangami sëñ Fallou nangami sëñ Fallou ñëpp ko bëgg ndax alxalqu iyaalullaah ahabbuhum ilayhi anfa'uhum mbindee fi njabootu yàlla ki ci gënal yàlla moo leen gën a jëriñ melokaan woowu mu yoroon jikko ju rafet joojoo taxoon ñëpp sopp mu sopp ñëpp fi ne boo seetloo ci biir kër sëñ Tuubaa waxuma foo dem fekk ñu tuddee ko waaye biir kër sëñ Tuubaa njaboot sëñ Tuubaa yëpp da leen tuddee doom cheikh yi mu toppaa leen tuddee leen ay doom ba tuddee xam ne ay doom sax nekkuñu ci réew mi cheikh Ibrahima Fall ak cheikh Modou Massamba Diop ak sëñ Modou Mamoun ak cheikh sëñ Modou Xabbaan ak ñëpp mu di leen tuddee maam Mor Jaara borom Saam ba tuddee Ahmadou Rafaai ak Ahmadou Badawi uh-huh. ak Fanta Madi loolu lépp jikkoom ju rafet jikkoom ju rafet moo taxoon moo xajoo ñëpp moom sëñ Fall bëgg Sëriñ Tuubaa jeex ci moom tàkk nangoo liggéey te xam fi muy teg tànkam fi muy jaar loolu tax na ba sëñ Pap uh-huh. jëmi sëñ Fallu ñi mu bokkal sëñ Tuubaa sax ko gën a bëgg ñi mu bokkal sëñ Tuubaa ñoo ko gën a bëgg Mhm. waggar ko te nungu sañ-sañ ma baatinam nag ku jubóog boromam la mhm. amul addis buy wax ne ab jaam dana jegeñ-jegeñ lu yàlla ci ay naafila mhm. ak jëf yu baax ba mujj mu nekk nopp yi muy dégge yàlla nekk nopp yi muy dégge nekk bëtam yi muy xoole nekk loxo yi muy jàpp ndeke ku nekkal yàlla tam doon dëgg looloo lay may loolu wallaahi xam nga léegi-léegi ñu réyal loo xam ne ñàkk xam yàlla koy wala fa isa saalaka ibaadi fa anni xariibun ujiibu da'wata daa'i isa da'aani yow mi amul connexion kay mm-hmm. amoo crédit te téléphone batterie néew ji jote <laughs> boo ca sukkandikoo nag ba ne fii kenn du fi woote ak ku woote kenn du jote yow yaa mënta jotee mënee su laa jot waaye am na ñuy jote ñu di leen jot bàyyi leen ñu woote wallaay ci àggaleeg seen mooy yegg nañ fa war a nekk